<laughs> ñu ngi ñëwaat léegi alors euh, euh, Fatou Abdou ñu duggaat xëy na ci euh, ci débat bi aborder un dernier point avec Guy Marius Sagna laata ñuy tëj. waaw dernier point bi mën nañu wax l'actualité de ces derniers temps muy mbirum faux médicaments yi Guy Marius Sagna ñu ngi wax peut-être suñu souveraineté mais tey bu Sénégal demee ba garab bu fi dugg sax amul sécurité ñuy wax ne wóorul ak anam gi nga xamante ne. moom la mbir yooyu demee boobu ak léegi ça fait presque plus de trois quatre jours douane bu génn joxañ baaraam tuuma pharmacie d'approvisionnement euh, ñu mel ne bal bi kenn ku ci ne yaa ngi koy sànnante yow ban analise nga ci mën def. duma ci sori euh, Fat Bintou ñaar wala ñett laa ciy wax bi ci njëkk mooy ñun ay sénégalais lañu ñun ñi nekk Sénégal am na loo xam ne bés bu nekk ñu ngi siy teg suñu bët état bi di ci teg bëtam di gàkkal euh, deru kilifa diine yi di gàkkal deru sëriñ si defe naa am na benn bërëb bu ñuy woowee kër sëriñ bi garab boo xam ak boo xamul ñu ngi ko fay jaay bi ma nekkee xale ba léegi maa ngi dégg ñu naan kër sëriñ bi ma waxaat ko pour man dañuy gàkkal deru sëriñ si ndaxte jaay loo xam ne waruñu ko jaay ci bërëb buñ ko warul jaay loolu waruñu ko associé ak suñu kilifa diine suñu mag yu baax yi mais loolu mu ngi fii depuis ay at ana état bi bu fekkee état bi mënul régler loolu kon dina régler xaw ma ay médicament ay chinois wala ay bangladesh wala ay américain wala affaire yooyu dañu waxante dëgg mu ngi fii ñun ñëpp xam nañ fan la état bi xam na fan la waaye état bi li mu sawar mooy bu dagg signal lu Sen TV jotee mu dagg ko mu wane dooleem bu jàpp Guy Marius jotee mu jàpp ko mu wane dooleem waaye li nga xam ne mooy faat doomu aadama parce que garab bu bon ni ñu koy waxee may profité waale di exprimer sama solidarité à suñu mbokk pharmacien yi ndaxte lu ñuy wax dëgg la les médicaments de la rue ça tue et les médicaments de la rue ñu ngi koy jaay ci bëtu état du Sénégal depuis ay décennies defuñu ci dara loolu la ñu war a njëkk wax état bi bu fekkee dafa fayir ci loolu mënul regle loolu lan lay mën regle leneen. moom état moo ne dina porter plainte à son ministère de la santé tey nga ne état boobu noonu peut-être xam na mbir mi fu mu jóge wala am na ci responsabilité. état bi constaté ne am na médicament yu fi dugg wala matériel médical yu awul ci yoon à travers son ministre wax na ne dina ci ubbi l'enquête boo xam ñi ci bokk ñu rëq seen digg. li ma ci dëkk wax mooy. bëri na ay bërëb fu ñuy jaayee de médicaments de la rue état xam ko bi ngeen nekk xale ba léegi yaa ngi koy gis mun na am sax sama yaay dafa doon dem di jënd defu ci tus ndax lan. muy benn c'est la première remarque que je fais lan moo tax état bi du jóg ci loolu benn ñaareel bi li ma doon wax ci woyof signature ak yolom signature président Macky Sall moo gracié benn trafiquant de faux médicaments. Amadou Bouri Diallo ngay wax. fa mujj fa mujj lu mu wax moom daal dañ ko jox mu signé. kon ndekete ñun ñu jël suñu 16 million de signatures 16 millions de citoyens sénégalais dajale seen signature. jox ko kenn ñu koy wooyee président Macky Sall moom muy foowee suñu 16 millions de signatures trafiquant faux médicament mu koy mu koy gracier mu ne dañ ko jox kayit rek mu signé muy ñaar bi muy gracier Amadou Wuri Bari ah Amadou Wuri mais trafiquant euh, de faux médicament ban message la doon jox mooy acca mun ngeen trafiquer mun ngeen trafiquer mun ngeen trafiquer ñii di jaay ay faux médicament te ñu leen di gis te jàppuñu leen ban message lay jox mais day encourager c'est-à-dire ci tekkaaral bi ak ci ak ci gracier Amadou Wuri dafa joxe un permis de trafiquer les faux médicaments en réalité loolu mooy message bi xëy na lii moo feeñ parce que lii rëy na rëy boo xam ne wax dëgg yàlla boo ci waxulee dina am problème fi may daanelee nag mooy li ma gën a yëttal ci mbir mi mooy li nga junj sànq lu ëpp at a ngi mu am benn entreprise moo nekkoon la seule entreprise Médis Sénégal booy defar garab garab yoo xam ne sax dañ koy utiliser ci xeexum coronavirus ak ci yeneen ak yeneen tëj nañu entreprise boobu ba tey boobu ak léegi ñun waa FRAPP ñu ngi siy yuuxu liggéeykatu Medis Sénégal ñu ngi siy yuuxu ñuy def ay promesse di dige di dige di dige waaye dafa mel ni suñu waa ji dëgg la yolom signature la woyof siñature la. waaye tamit yolom kaddu yolom kaddu woyof kàddu waaye jëf mooy nattukaayu dëgg. tout jëf mooy nattukaayu dëgg ak ku mu munti doon nag. jëf mooy nattukaayu dëgg depuis un an. après ñu ne ñu ñu ngi xeex coronavirus loolu li muy indi wax ji muy indi mooy war nañ moom suñu bopp ci fànn yu bëri waaye itam ci wàllu wér yaram ci wàllu garab yi nga xam ne moom la ñuy fajee suñu askan. Mhm. te ba léegi moomuñu suñu bopp ci wàllu garab ci wàllu faj suñu askan. tey jii nii euh, yéen suñu jigéen yi mais xale yi nga xam ne euh, doom yi nga xam ne moom ngeen am. pikiir yi ñu leen di pikiir téeméer boo jël ci budget bi lu ëpp quatre-vingt pour cent mu ngi jóge bitim réew. donc Sénégal bu bu waxee ne euh, peut-être le président Macky Sall bu amee volonté que Sénégal bokk ci dëkk africain yi nga xamante ne euh, fii la ñuy njëkk a defaree vaccin yow am nga ci yaakaar wala. vaccin contre la Covid 19. lenn rek xam naa ko mooy déjà gàcce la ci Sénégal million millions d'habitants. gàcc la ci Nigéria cent vingt millions d'habitants gàcce la ci ci Ghana ci Burkina ak ñoom seen huit millions dix millions d'habitants deux mille vingt et ñu ne Cuba million millions d'habitants am na vaccin coronavirus mu ngi defar yeneen ñeenti vaccin ñun Afrique yëpp cinquante quatre états amuñu benn vaccin Cuba benn réew million millions d'habitants am benn vaccin mu ngi koy jaay mu ngi defar yeneen ñeenti vaccin loolu gàcc la ci ñun. gàcce la ci der bu ñuul gàcce la ci Afrique waaye loolu kenn teguñu ko suñu njiit yu dëng yi suñu njiit yoo xam ne bëgguñu Afrique bëgguñu askan wi ñoom daal seen bopp seen njaboot seen goro seen waa parti waaye lii nga xam ne moo ñor askan wi wax dëgg yàlla tuuti lañ ciy dugub tuuti lañ ciy dem Baye Malick yaa ngi dégg réew bu ñuy woowee Cuba am fukki million ak benn ci doomu aadama états mu imposé ko blocus économique maanaam lu ëpp juróom fukki at États-Unis mu ngi koñe réew moomu ñu koy woyu Cuba onze millions d'habitants am nañ benn ñàkk ñu ngi waajal yeneen ñeenti ñàkk ñun cinquante quatre états waaw xaw ma un milliard d'habitants wala boog lu ko jege ñun amuñu benn ñàkk xam nga waa Cuba nu ñu woowee seen ñàkk bi ñu ngi ko woowee moom sa réew moom ñu ngi ko woowee moom sa bopp maanaam soberana ñu ngi ko woowee moom sa bopp onze millions d'habitants donc pour man loolu mooy débat bi débat bi mooy pour man état du Sénégal amul volonté amul volonté maanaam fu maanaam fullalul xeex garab yi nga xam ne ñu ngi koy jaay ci mbedd bi fullalu ko bu ko fullaloon dootu fi am ak li xew nii jàpp nga ne euh, dina dal xel ci ne kon daan ci taxaw temm ngir xeex ko xëy na. Euh, ah li may ñaan de. voilà parce que ñu ngi ci teg loxo xëy na ñu ngi wax ci koppar ay milliards la est-ce que mun na doon porox ndool ci sa gis-gis ci ne bu ñu fi jógee xëy na ak domaine bu mu mënti euh, laal ak secteur bu mu mënti laal wala kuñ ci mën a jàpp itam bu bu bu ko l'enquête bi firndale que daan ci xeex nag ni ko jëriñ bi waxee ba mu ba mu ba mu ba mu jóg fi am na sax ñu naan nañ ko criminaliser faf état du Sénégal jaare fi gën a fulal xeexum garab yu bon yi. d'accord nga ci ñu criminaliser ko. xam nga fii Sénégal fii lañu jël benn àtte ci wàllu nguus fan la mujj. fii lañu jël benn àtte ci euh, wàllu tux ci mbedd bi fan la mujjee Sénégal fii la jël benn benn àtte. boobu xëy na ñi ëpp ci ñi fi toog juddoowuñu ñu woowee ko atte boo xam ne day xeex yàq ci xew yi loi contre les gaspillages dans les cérémonies familiales mu doon loi boo xam ne jàpp naa ne loi bu baax la parce que réew moo xam ne yaa ngi bokk ci fanweeri réew yi gën a ndóol ci àddina bi sa saw askan war na tal leneen lu dul ngénte wala communion wala confirmation wala céet nga fay dépenser un million nga fay dépenser deux millions wala dix millions. alors sawa réew askan boo xam ne yaa ngi ci réew moom war nga tal leneen donc li ma bëgg a wane foofu mooy ñoo fi dàq jël ay atte ñoo fi dàq jël ay dogal ñoo fi dàq waxtaan ba pare ne lii tere nañ ko waaye fuy mujj mbuus si tey la gën a bëri cigarette si tey la gën a bëri ak ñoom seen xam nga fan laay daanelee Mohamed état du Sénégal bu fekkoon dëggantaan njaay wér gu yaramu askanu Sénégal yittal na ko kon cigarette kenn du ko jaay Sénégal wala buñ koy jaay day cher utum taxe rek utum juuti rek tax ba état du Sénégal di bàyyi suñu ndaw yi di tux di tux di tux bu fekkoon état du Sénégal euh, wér-gu-yaramu askanam yitteloon na ko sàngara duñ ko fi jaay wala dinañ ko seeral seeral boo xam ne téeméer boo jël xëy na juróom ñoo koy naan mm-hmm. alors ak euh, yeneen ak yeneen. alors donc nañu waxante dëgg. alors bu ñu bu ñu attaqué peut-être li ñu dese bëriwul dernier point muy les élections locales li nga xamante.